élection amagu fi boo xam ni suñ parti perte na ko donc loolu defe naa luñ jar a rafetlu la mhm. di souhaiter joyeux anniversaire d'abord di ko commencer ci ki ko jiite mhm. muy président Macky Sall mhm. ak ñi bokk ñëpp waaye nag am xalaat bu sori. Mhm. ci ñi ko sanc très bien lan ngeen di répondre justement monsieur le ministre ci ñuy wax ne xëy na parti bi dafa judd rek jël réew mi par bokkul ak yeneen parti traditionnel yi nga xamante ni xamoon nañu leen ñu cheminer def mhm. demay élection perte demaat élection xëy na gagné parti boo nga xamante ni dafa judd yàggul mu jël réew mi ñu mhm. jàpp ne xëy na ay mbaggam dina oyof lool ci ŋànk réew mu mel ni Sénégal ak doxalinam yëpp ñu jàpp ne loolu xëy na xawoon naa diis lool ci yéen ba ñu gis yëpp ñu di ko gis ci ci parti bu mel ne Alliance pour waaw euh, bon boo boo xalaatee en terme de parti peut-être mën nga xalaat loolu. Mhm. mais booy xoolee tamit ki jiite parti bi du woon ku bees ci politique. tout kuréel yi am ci réew mi yëpp yàlla jaarale na ko fa. Mhm. donc mu jot faa dajale euh, xam-xam ak taxawaay bu tax tey mu mën a téye réew mi. donc euh, ñu mel noonu la woon certes am na ñu musul politique. ñu ci ñëw fekk si jàpp ci ñu bokk ngëm-ngëm. mais tamit amoon na ay nit yoo xam ne quand xamoon nañ état. amoon nañ expérience ci état. donc du woon parti amateur. donc euh, xëy na loolu tax na. ak jàngat yi président amaale yëpp ak ñi ñëwoon. parce que tamit nekkoon nañ ci yeneen kuréel politique. ñu ñëw ak seen xam-xam ak seen taxawaay ak seen expérience. Mhm. loolu la président dajale. yàlla sutura yàlla tamit. Mhm. parce yàlla tamit lu ci jara boole la. <laughs> yàlla mooy joxe nguur yàlla xëy na jox ñu ko. Mhm. mais jàpp naa ni daal euh, am am na tax am na taxawaay. Mhm. waaye tamit ca bam soobee yàlla suñu borom. très bien ñu dugg xuus ci waxtaan bi bu baax a baax ñuy jëm ci élection locale nga doon euh, ba ñu sampee rek candidature yi ñu annoncé le déjà ñu teel a xam ne da ngay dem wuti ji ville bu Dakar muy candidat à la mairie de Dakar euh, nga bokk ci partie bu nga xamante ne nii di APR Alliance pour la République amoon na fa ñu ko bëggoon également Benno Bokk Yaakaar amoon na ñu ko fa bëggoon alors justement laaj bi njëkk mooy pourquoi sa euh, choix ci porter sa candidature ci ville bu Dakar. waa da da dama doon ñaan rek pour peut-être nga may ma. ma mhm. jaale mhm. suñu mbokk laayee ni mhm. euh, porte parole bi Papa Lamine. ci way juram bi génn àdduna. di ko jaale Baye Ndiène. di ko jaale tamit particulièrement suñu yaay bu nekk foofu mère Kodou Laye. di ko jaale tamit. Euh, ñoom papa Seydina Issa ak axlu laayeen bi yëpp di ñaan yàlla may ko kàttan amiin bu mu taxawee parce que ñàkk way jur aussi jafe na waaye tamit suñu maam bi dem yàlla xaare ko àjjana bon li tax ma euh, bëgg dem ma poser sama candidature pour mm. maire ville de Dakar dañoo bëgg a soppi Dakar parce que Dakar ni mu mel nii euh, dañ cee am yéene ak gis-gis boo xam ni ci PSE wu président Macky Sall lañ ko jëlee mm-hmm. xool acte trois bi méngale ko xool nan lañ mën a soppile Dakar niñ ko defee nag seen effectivement c'est vrai mouvement euh, coalition Sénégal 2035 la biñ ko créé c'était en 2018 ñoo njëkk investir le président Macky Sall ña ca bokkoon ñi ci ëpp du ñu ay politique ñu jóge woon ci société civile bi la ak ñu mësta politique mmh. mais amoon gis-gis ci li président di def donte d'accord wuñu woon ak moom ci ñenn ñi ñu ni li tane ci réew mi li gën ci réew mi mooy ñu ànd ak moom pour que PSE bi continue hmm. donc ñooñu xam nañ ni que PSE programme bu baax la xam nañ ni que acte trois bi bu évoluer mën na euh, réglé politique wu décentralisation hmm. donc ñooñu ñoo ànd tey ñu ànd ak ñoom ci quinze listes à Dakar ak benn liste ville ñu ni dañuy dem wuti mairie Dakar pour soppi nag xar kanamu Dakar xar kanamu Dakar. mu mm. loolooy mbébét li dinañ ci gën a ñëw gën ko xuusal euh, alors dañuy jox kàddu gi Ndeye Dimet Ndaw moom itam mu tàbbi ci waxtaan bi ginnaaw ba ñu la nuyoo. jërëjëf Mouhamed man aussi ma lay nuyu di nuyu Fatou Abdou. Mm. nuyu aussi suñu gan monsieur le ministre am mbégte loolu dalal ko suñu plateau. alors. Euh, yow da nga taxawal sa list parallèle fii ci dakaar mu juróon coow lu bari mu am ñu wax ñu bokk ci si parti ni da nga respecté wul discipline de parti. Mm-hmm. yow nga ne am nga bénédiction président Macky Sall. Mm-hmm. ñu dox ba ay jamono président dëggal lu xaw a mel noonu wax ni am na liste yoo xamante ne ni daf ko bénir mm-hmm. alors tey lan mooy pertinence su am beneen liste bu bokkul ak liste boo xam ne Diouf Sarr moo ko jiite. waaw ah, jërëjëf soxna Demet xëy na loolu sa jàngat la mais man jàpp naa ni que demewul noonu ni ma bon man ni ko posé man ni bu ma doon bu ma dee wax ni ma ko posé mooy mhm. euh, kii sa su Mahamat laaj nañu mhm. kañ ngeen euh, wax na seen mouvement wu Sénégal 2035 mhm. ci biir tontu bi nee naa ko mouvement bu la buñ créé ci depuis 2019 et wax naa ñi ci nekkoon ñi ci nekkoon bokkuñu woon su ñuy nawle lañ ay sénégalais quand même yu dëkk ci gox-goxaat yi doon ay citoyens yu remplir ay am am droit wu dugg ci euh, gestion collectivité yi. Mm-hmm. mais boobu élection présidentielle la ñu wax ak ñoom pour ñu ànd jàppale président pour mu am deuxième mandat. Mm-hmm. ñooñu bokkuñu APR te ñooñu li ñu waxoon ak ñoom mooy est que bu ngeen ñu jàppalee ci présidentielle bi élection locale yi bu ñëwee dinaa xool nan la ñuy organiser woo pour ñu ànd dem ci. élection locale yi. Mhm. donc wax ji foofu la commencé. Eh, man xaaruma ba locale yi jub si ma wax ko. Mhm. at ak genn wàll ci ginnaaw laa wax ni que man candidat la maire ville de Dakar. Mhm. ñu laaj ma ak lan ngay demee ma ni am na ay nit yu ma waxtaanal yoo xam ne bokkuñu ci parti politique. ay mouvement citoyen lañ am na ci ñu ci jóge opposition am na ñoo xam ne mosuñoo politique. ñooñu état joxu leen. ci seen kàttanu bopp ci seen doole bopp ci seen alalu bopp lañ defee seen gox lu ñu leen fonke lu ñu leen nawee ba nangu leen jiital hmm. ñooñu c'est pas parce que bokkuñu ci mouvance présidentielle bi ñu amuñu droit xëccoo collectivité bi hmm. donc bi ci njëkk mooy du liste parallèle beneen bi ci topp man du ma def quand man mënuma contre président coalition Benno Bokk Yaakaar investir na candidat man mosuma xëccoo loolu mosoo ma dégg ma ni investir leen même yéen bu ngeen daan wax yeneen ñaari nit ngeen ni daan tudd. man même ci seen bind xel yi nangu woon na nekk man am na ñu ma waxal te damay. mais xam nga dakaar enjeu bi dafa rëy. Mm-hmm. parce que euh, mënuñu comprendre. Mm-hmm. mbay nekk militant de la première heure. dakaar xeex bi metti ak mode de bees bi nga xam ne raw gàddu la mm-hmm. ñu gis ay liste yoo xamante ne ni. ñoo bokk fu ñu rootee mais dañuy dem séparément. déedéet ma man man nee naa la rooteewu ma foofu. li ma wax expliqué nga ko. léegi dama lay jox exemple. ñu jël cas mhm. boo demee euh, plateau. Dakar Plateau Abdou Khader Gaye mooy candidat wu coalition Sénégal 2035 tout à ñaar fukki at ci ginnaaw waa Plateau xam nañ Abdou Khader Gaye mu yor ONGM di jàppale waa goxam ci ay pexe boppam ci alalu boppam ci ay relation boppam bu hôpital soxlee rajo mu dem uti rajo bu hôpital soxlee échographie mu dem uti ko mosul am décret mosuñu ko nommé liggéeyul fonction publique donc lui il imposé élection locale problème mu koñ bi la problème mu gox bi lam defal waa plateau bañ nangu ko ngemb du man rek maa ko bëggoon investir ñeneen ñi bëggoon nañ ko xëccoo dem investir ko. mais lu tax jëloo sa doole yëpp dolli si ko si Diouf Sarr ngeen ngeen àndandoo yow Diouf Sarr. mais bu ma bëggee euh, Amadou Ba mais mais tey bu fekkoon ni que loolu la kon man du ma bu fekkoon ni mën naa dolli keneen man dama jàpp ni que mën nañ changer Dakar dama jàpp ni que mën nañ changer xar kanamu Dakar bokkuma ak moom ni muy doxale bokk ma ak moom gis-gis d' accord ma ci lim def yoof d' accord ma ci ni muy doxale parce que da ngeen mënul def quoi moo tax nga dem. c' est pas que dañu mënul def. c' est à parti politique ak coalition li ñu boole man topp ma ci ginnaaw kenn ci ginnaaw président laa topp. Mhm. nëbbu ma ko mais est ce que loolu mooy parti. Mhm. déedéet yow yaa gis ni que du am na yeneen parti yu ñëw seeyal seen bopp ci suñu parti. am na mhm. yeneen parti yu ñëw bokk ak ñun coalition. mais comme mouvement citoyen yi ak société civile bi am nañ droit bokk ci ay élection ce qui c'est-à-dire nañu départager élection locale mm-hmm. ak ay élection présidentielle ak ay élection législative élection locale localité bu nekk day jël ki gën ci moom jiital ko pour mu nekk maire pour mu toppatoo soxla askan bi mais kooku c'est pas parce que politique wul ko amul droit est-ce que mesuré nga say nga say chance Euh, dëggantaan ba xam ne yow mi jongante yi boo ci duggee war nga ci mën a am dara. man ba nga ma xamee ba léegi xamoo ma di dugg ci loo xam ni yaakaaruma ci am ci ndam. d'accord. ñu jox kàddu gi de euh, Fatou Abdou moom it mu tàbbi ji waxtaan bi ginnaaw bañ la nuyoo. alors ñu ngi lay fay bu baax Mohamed nuyu également Ndeye Dimet c'est un plaisir de vous recevoir monsieur le ministre. ci plateau bi euh, yaa ngi wax sànq li nga xam ne moo jëm ci sa candidature. Mm-hmm. mais ñu taxaw foofu parce que mbiru gox la mais ki nga xam ne moo leen jiite dafa waxoon ca Touba ne du ñu nangu liste parallèle euh, mu delluwaat fa nga xam ne moom mooy réew bu France wax ne am na liste parallèle yoo xamante ne dañu am sama bénédiction. Mm-hmm. tudd Kolda tudd Bignona ñu xalaat. ne Dakar war na nekk ci xelam parce que c'est la capitale du Sénégal tudd ko même s'il a d'autres zones est-ce que tey mën nga ñu wax concrètement même si waxoon nga ko ndax mbir yi évolué na wala évolué wul que da nga am bénédiction du président Macky Sall pour que nga samp sa ndënd fii ci Ndakaaru man musuma wax ne que dama am bénédiction ah c'est bon ma sa li ma wax ki ma laajoon daf ne man lii ma ne ko man du ma def luy lor sama patron en tout cas li may def nii ñaanal na ma hmm. loolu <laughs> j'ai pas utilisé le mot bénédiction. Euh, lan lañ mën a comprendre ci loolu. li ñu mën a comprendre mooy est que nee naa la Sénégal deux mille trente cinq moo njëkk a investir président Macky ko que Benno Bokk Yaakaar. <laughs> ndax campagne nañu wala campagne ñu yéen yéen a nekkoon. ndax ñi ci doon nekk ci parti bi lañ bokk xam ngeen ni bokkuñu ci. feneen lañ bokkoon ñi bokkoon taxawu Dakar ñi bokkoon société civile ñi bokkoon ci yeneen parti opposition bi ñoo xam ne bi ñu gisee ni que quatre candidats moo am mais ñooñu ay sénégalais lañ. ca mhm. participer nañ cotiser nañ nag ci président de la république falu bokkuñu parteem ñooñu amuñu droit dem élection. Mhm. te ñooñu li leen samp seen gox du décret du nomination du leneen seen kàttanu bopp nee naa la boo demee Grand Yoff Moustapha Mbengue mais. ci doole boppam la sampoo Grand Yoff man fekkuma ko ci ci alalu boppam ci pexe boppam ci relation boppam. Eh, xay xëy na ni nga wax ni noonu la waxee demee waaye bu ñu gisee dànkaafu bi gisaat kàddu yi nga xam ne président yëkkati na ko est-ce que xaaroo ma yeggale foofu peut-être pour ñu mën a baral mm-hmm. est-ce que xaaroo ay représailles bu ñu paree ci élection locale yi mais euh, représailles comme naka tey sa devenir ci sanction ñu <laughs> dal ci ah, sa kaw xam nga nag àddina moom nit ki da ngay xool li nga war a def nga xool ak sa àqulaay man lenn rek moo ma doon metti li may def di xeex président bi. parce que nag ñeneen ñi ci des tënkuñu ma topp ma leen. si ñëw ma ak ñoom contrat ñu ci bari dañ maa fekk ci këram ñi ñeneen ñenn ñi maa leen indi ñenn ñi bokk naa ci ñi leen indi ñeneen ñi dañ ma faa fekk am nañ am nañ la ko bañ koy sanc maa ngi toog man moom laa amal contrat. mais topp ma ci gannaaw keneen amul trait d'union du ma ko nangu. mais su fekkee ne moom du ma toog ba léegi. Mm. léegi li nga wax ci ni que ay liste parallèle lim na mm. fee lim na fële. politique ñu ñëpp xam nañ ñu stratégie la. Mm-hmm. nit ki mën ngeen a bokk parti mais loolu moo tax ñuy tudd tendance ci biir parti. Mm-hmm. tendance xanaa du ren la am. depuis bi parti politique amee ba léegi da ngay gis gox bu nekk mu am tendance. Fatou ab du ànd ak Mansour du ànd ak Ndeye Dimet mais yéenay bokk toog. mais léegi bu ñu jëmee ci élection mu wóor la ni que ñi ànd ak Fatou Abdou duñ jàppale Mansour alam nikk parce que lu am la. lu ñuy dund la. dañ koy du dañ koy ngun ngune ci suuf mais ñun ñëpp xam nañ ko ñi topp Fatou Abdou duñ la mës a topp. mais bu fekkoon yow rek yaa fi des jaral na leen ñu dem bañ a voté ji wala ñu dem voté sanction mais stratégiquement. parti bi ci gox boobu mën na trouver ndax Dakar ci la bokk wala Dakar du ci bokk man du ma tontu loolu. Mhm. parce que am na loo xam ne. Mhm. dañ koy wax nit ñi am loo xam ne dañ koy wax nit ki. Mhm. alors euh, yaa ngi wax ne kenn mooy sa kilifa muy le président Macky Sall euh, moom moo génne liste coalition benn Bokk Yaakaar génnee Abdoulaye Diouf Sarr comme le maire de Dakar nga yëkkati kàddu comme pour fragiliser le bilan d' Abdoulaye Diouf Sarr à Yoff euh, est ce que loolu nekkoo di jox tey opposition bi loo xam ne mën nañ cee dëgëru. ngir def seen campagne ngir mën a am Dakar. non non yow yaay gisee gis nga élection yi nii bul gis bul gisee noonu. Hmm. élection locale la enjeu yi localité bi la. mën hmm. nëbbuma ko nee naa ñetti candidat moo am ci élection bi ñu nekk opposition bi. opposition bi dañuy ut mairie pour taxaw jaamaarloo ak état bi mën naa sax bañ a wax état bi pour jaamaarloo ak Macky Sall. Hmm. loolu ut nëbbuñu ko. gagné woon nañ fi ay maires donc ñoom dañuy ut place pour fu ñu mën a taxaw pour xeex Macky Sall. donc mm-hmm. seen localité yi intéressé wu leen. beneen bi nee naa la ay ministre ak ay DG du ñëpp mais yoo xam ne pour conserver seen place ñun dañu dem jëli ñi bëgg defar seen gox ca comprendre ni que noo yor commune di jàmmaarloog état bu fekkee da nga bëgg liggéey. Mm-hmm. ñu proposer leen ni leen kaa ñu liggéey. Mm-hmm. ñu nekk seen trait d'union ak état bi ñu bokk programme xalaatandoo programme bi nee naa la ci PSE lañ ko jëlee nëbbuñu ko ba boo ñu wax ne que mais ñun rek ñoo fi wax programme beneen bi ci topp mooy est que euh, bilan wu euh, maire sàngam ci commune ba mais nit ñi mënuñu la fal juróom-ñaari at mënuñu wax poto lampe bi yaa ko fi def. Ah ak foo mën ci bokk ah mais déedéet ce que c'est-à-dire loolu il faut ñu wax mu leer. Mm. moi j'ai euh, xam naa li am. nekk naa membre gouvernement pendant sept ans communes yi li fa am lépp président ko def communes yi li fa am lépp président moo ko def parce que moom moo xalaat ni que bi mu bëggee euh, améliorer suñ politique de décentralisation ci la indi acte trois mu gis ni que daf leen war a jàppale pousse leen pour ñu démarrer mu créer ay promoville créer euh, électrification rurale bi ak euh, universelle bi mais yooyu mooy lampes solaire yi li ñuy inauguré wax ma mm. maire bu fi inauguré loo xam ni du projet yooyu ñoo ko def amul ci ci élection locale yi monsieur le ministre mm. euh, gis nañu ay recours yu bari yoo xamante ne nemmeeku nañu ko ci kujeg politique bi mm. recours yoo xamante ne mel na ne lu am xëccoo entre l'administration territoriale ak la justice puisque cour d'appel dafa nangul opposition bi ñu bari seen ay list ba tey euh, am na ci ay gox ma nañu tudd Pikine euh, ñu ñu bañal leen ko euh, loolu yow ban ban jàngat nga ci am. non quand tamit il faut qu'on soit sérieux sérieux weesuwul yow nga ni da ngay xëccoo localité ci xamoo sax nan la ñuy remplir na nan leen waxante dëgg. cest à réew mi egg na foo xam ni ñiy wax ci kaw sax xamuñu nan lay demee yow nga bëgg a jiite bëgg nekk maire xamoo sax nombre de conseillers bi war a am ci mairie bi. yow ñu woo la code électoral bi bi ñu koy defaraat parti politique yëpp la ñu woo nga am fa représentant mu toog ñu wax nan lañ koy defee. mais acte préparatoire yi. da ngeen koo da ngeen koo yéex a génne. déedéet déedéet mais dafa déedéet. bul wax acte préparatoire acte préparatoire code électoral bi disponible na ñu ñëpp ñu gis ko. ñoom seen bopp am na ci ñenn ñu woote séminaire. yow nga dem tëju sa kër di defar sa list mënoo xam ndax cinquante cinq la wala quarante. mais loolu ay ay motif de rejet. ay motif de rejet définitif la léegi tribunal ni mu amee cour d'appel noonu la amee cour suprême dafa am lu tënk ay élection élection yi ni muy doxee président dafa joxoon ndigal ministre de l'intérieur ni ko wool ñëpp ñëpp ñëw toog am na ñu ni woon duñ dem mhm. ñu d'accord ci nan la ñuy demee ci élection bi waa léegi yow nga génn dem déposer lu baaxul après nga bëgg a wax ay tribunal ak ay leneen mais loolu euh, yoo xamante ne euh, cour na leen dëgg ba pare en même temps euh, wala muy ñi nga xam ne ñooy administration territoriale alors que moom moo war a organiser ces élections locales de manière transparente et indépendante non bennoo coalition la du yow gis nga fi hmm. mooy jeu démocratique bu ko ñiy defee bu ko bu ko opposition radicale bi defee mënoo bind liste xamoon nañ la ñu bëgg bind defee liste nga bëgg a jiite maire yi déjà loolu mooy première euh, loolu mooy li jiitu ci ñàkk xam gi beneen bi nga dem déposer ay recours ba pare bañ ko attaquer say recours mm-hmm. tribunal bu waxee lu la arrangé nga ni tribunal na. tribunal bu waxee lu la arrangé wul nga ni nii dañuy jaxase. mais administration territoriale administration territoriale boobu monsieur ministre comme ni ko waxee est ce que warul toogee xëy na pour accompagner ñi nga xam ne ñoo ñëwoon pour déposer seen liste parce que bëri waa na ci ay préfecture wala sous préfecture yoo xam ne nii euh, da nga ci euh, laaj ñenn ñi sax ñu lay wax ne euh, collaborer nañu ak acteurs yi ba ñenn ñi déposer seen liste te amul te amul benn jafe-jafe mais ni mu demee nii dafa mel ni dañu doon xaar waa Yewwi ak opposition bi seen liste. mu am tuuti rëq-rëq rek ñu daal di koy rejeté rejet yu bëri yooyu moo tax ñu suñu xel tey xëy na. ci ñàkk accompagnement bi ñu amee par rapport ak administration mm. territoriale. non non bu leen ko gisee noonu parce que demeewul noonu. Mm. liste dafa am ñaari raison am na rejet définitif bu fekkee ni que c'est matériel wax nañ ko ci règlement. Mm-hmm. boo waree déposer liste boo xam ni cinquante cinq titulaire la ak mm-hmm. vingt huit suppléants boo ñëwee indi cinquante. Mm-hmm. titulaire ak vingt deux suppléants. rejet bi c'est mm-hmm. mais boo fàttee légaliser benn carte d'identité wala nga juum ci adresse date de naissance ak yooyu dañ lay jox notification préfet bi ñëw nañ bàyyi administration. bi ñu bëgg a def c'est-à-dire boo mënul da ngay laajte. mais est-ce foofu la yem mënul rek. foofu la yem. Mm-hmm. parce que bu ñu gisee un mandataire qui qui est reçu par le président de la république daw ak ay listu jàmbur. non ñu ñëw gis le palais de la république. ñu lay recevoir est ce que yooyu yëpp du indi tey xel ci processus électoral bi. non non non man du ma dugg ci polémique yooyu. et je mm. défends même pas ça. président de la république mën na recevoir ñëpp day sax recevoir waa MF day recevoir ay rebelle mm-hmm. président de la république am na droit résevoir ñëpp. Mm-hmm. am na looy xam am na loo xam. mais du lay recevoir ay opposants yoo xam ne dañuy xëy wax lu leen neex bu ngoonee ñu ñëw gis ñu waxtaan ci waxee réew mi. mais valeur démocratique donc il faut pas non non non non c'est-à-dire que ñuy def ay erreur bu ñu arrangé ñu ni arrangé nañu. Mm-hmm. loolu benn kaala la mandataire bu désisté. mais mais am na am na ñu am na. mais mandataire bu daw monsieur le ministre mandataire bu daw ak liste coalition ba naroon leen a xañ seen bokk élection. mu bokk ci wor. ay valeurs démocratiques yoo xam ne le président moo ko war a prôné su ko recevoir bu mu def toute cette peut être li nga xam ne moom la ñu ci gis ci week-end bi ci réseaux sociaux yi war nañu la ko mën a laaj non non man c'est c'est pas les réseaux sociaux qui font pas seulement les réseaux sociaux non dama lay expliquer mhm. c'est-à-dire ni ñu ko fay présenter parce que amul benn filtre xam nga seen télé bi balaa ñu fiy wax yow di nga jël sa téléphone woote woote woote réseaux mhm. sociaux yi neex nga dëb bind lu neex mhm. li am mandataire bu ne woon dañ ko kidnappé à la moom yow yaa tànn koo xam ni am na capacité bàyyi la fa dem mais sa responsabilité la am na ñu bind ci liste yi ñu de bind préfet dem ni ñal lañ ci génne. am na ñu gedd te du foofu rek fépp la. c'est-à-dire investiture yi nii ni mu amee problème ci Yewwi noonu la amee problème Benno Bokk Yaakaar. ci nag ñu ngi sant yàlla amuñu problème <laughs> boobu. mais donc loolu mooy firnde ni que booy tànn. tànneef bi da nga koy teg ci anam bu sell. absolument a ci yam nag. Mm-hmm. mais ñu bañ a jël mbubb bi solal ko préfet yi solal ko leneen. Mm-hmm. seen lig c'est-à-dire. Euh, c'est que nag dañ fay def monsieur le ñëpp. mooy pourvoi une première ay ay préfet sous préfet pour ñu xëy na nii na <laughs> yenn ji dogali. ko d'appel jël non non non non loolu daf ñuy xaw non bu ko gisee noonu. Mm-hmm. parce que yow yaa ngi wax ni que am na préfet yu dëppul seen liggéey. ñoom corporation la. ñoom aussi. yow bu ñu la waxee ni que defoo sa liggéey am nga droit wane ni que def nga sa liggéey. Mm. mais loolu la. ok c'est pas autre chose c'est-à-dire ku ñu rejeté. c'est que yi ñoo dul nangu di leen jox kayiti notification yi ku ñu ku ñu rejeté ci élection yi nii. Mm-hmm. tamponel nañ la benn bindal nañ la benn kayit def ci deux tampons. mais si tu es inapte à écrire. à rédiger benn boo fekkee ni que munoo bind list wax dëgg yàlla looy def ca mairie ba du am nañ liste yu baax ñoom am na list yu ñu validé non ok ça yooyu ñi ko remplir mën nañ yeneen yi ñi ko remplir mënuñu donc il faut pas créer ce tollé là nañ sëgg bëre wax ji wax ji wax ji mooy ndax mën nañ wala mënuñu déjà wane nañ ni que mënuñu def d'accord monsieur le ministre euh, nag nañ sëgg bëre mais est-ce que acteurs yi bu war a bëre ci làng gi mhm. est-ce que ñoom pare nañ bu ñu gisee administration territoriale def pourvoi c' est vrai que seen droit la mhm. mais est ce que tey ak lu ñu perdre ci temps euh, pour bañ a respecter calendrier euh, électoral bi waru woon tax ñu tëb ay étapes yu bëri pour dem ci l' essentiel non euh, madame règle yi bu ñu ñi d' accord ba ñu tëgg ko wax dëgg yàlla ku ko mënul respecter mooy waroo faa toog mhm. élection yi certes reporté nañ ko deux fois mais man seede laa ci ne que heure bu ñu ko reporté ñëpp ci d' accord. léegi fixé nañ date bi mais c' est pas man man pour rien au monde may d' accord coalition bu sa ñun coalition bi ma yor pour rien au monde ñuy d' accord ñu reporté élection yi. parce que jekku nañ leen jekku nañ ñii après ñu bëgg a taf yëngu mais pour lan fixé nañ règle yi ku ko mënul respecté waroo ci bokk. du question bëgg éliminer kii am na ci ñoom ñu déposé am na ci ñoom ñu jàll boo mënul da ngay nangu ni mënoo. nga dem nga préparé wu beneen yoon nga préparé wu. pour loolu bañ a xaw na gudd de. boobu ba léegi si ñi ngi dégg surtout du côté de l' opposition ñi di wax ñu jotagul notification et puis temps bi mi ngi dem aussi. le temps presse non non non non ñuy wax loolu waxuñu la am. liste boo ko déposé ci quarante huit heures yi. ndax rejeté nañ ko wala da nga indi war nga war a indi ay complément de dossier préfecture yi dañ la koy signifier par un papier bu ñu la rejeté rejeté nañ la am na ay voies de recours aussi qui sont prévues da ngay dem ci voie de recours yooyu mais quand même ça ne veut pas dire ni que yow déposé nga recours que dañuy arrêté élection yi pour lan yow yaa def lu ñu la rejeté yaa ngi topp pour dabu mais demal dabu mais ñi déposé mu baax nag ñooñ dañuy taxaw di la xaar yow. pour yow mais ñi cour ñi cour d'appel jox dëgg nag am na ñoo xam te ne ñi ngi xaar. mais attends cour d'appel rek amul ci tribunal. absolument tribunal ñetti étape la. yow cour d'appel la léegi des na beneen ñee déposé nañu recours fële mais pourquoi ñu bëgg a ci cour d'appel bi rek bëgg a singali cour d'appel rek pourquoi corporation boobu nga xam ne ñoom jàpp nañ ni que ci seen liggéey lañ def amuñu droit ni ñun suñu liggéey lañ def c'est-à-dire il faut pas que ñu bëgg a wax ci ci am nañu ay indépendants yu déposé am na yeneen coalition yu déposé ànd liggéey ay bunt beeg ay ñu yëpp am na fi. mais ñëpp dañ déposé am na ñu ñu ci rejeté. d'accord mais da ngay jéem a dem conforme. mais yow mm. alam nikk la laalee sax nga ni noo dañ ma bañ kenn bañu leen dañoo amatul dara. d'accord loolu mooy dëgg bi. alors euh, loolu sax dafa jur coow indi yenn tension yi ba fan yi paas ñu woon ko ci yenn localité yi euh, tey jii mu jur euh, chart pour la non violence ñu ciy waxtaan boobu ba léegi si. Mm. gis nga actualité bi ak CUDIS mi nga xam ne président Macky Sall recevoir na leen acteur politique yu bëri. pare nañ pour signer ko waaye gis nañ benn camp bi nga xam ne ni mooy yeewi askan wi en l'occurrence Ousmane Sonko wax na ni moom du ko signer pour plusieurs raisons nan nga gisee loolu. waaw day firndeel li ma wax rek utul mairie ñoom utuñu ay mairie pour liggéey li mairie yi ñuy ut pour taxaw fa di xeex askan yi ñuy ut askan sénégalais yi nañ xam ni que ñii utuñu pour liggéey seen gox-goxaat yi. Mm-hmm. mooy am. mairie yu ñu taxaw pour di xeex Macky Sall léegi nag yàlla nattu na leen Macky fii ba deux mille vingt quatre mooy président de la république léegi ñoom mairie yi ñuy téye dañuy askan ba day taxaw di leen xaar ñuy xeex ba deux mille vingt quatre ñu toog ñaari at et demi. mairie yi ñoom xeex rek lañ leen di jotale. mais xeex bi ban euh, raison lañ joxe bu ñu dégloo leen mémorandum def dix points ci mémorandum bi. Euh, wax ci lu jëm ci non violence mais ba tey kenn teniru ko en compte. bari na fi ay manifestations yoo xam ne dafa am ay song yu ñu leen song. non non non madame je pense que euh, règle yi. Mhm. mooy garantir ñu ñëpp ñu mën a dund. mooy mooy muy ñun muy waa Benno muy waa Yewwi muy muy ñeneen règle yi ñu définir loolu mooy république république. dafa am cadre am réglementation am ay procédure après ñuy soog a egg ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci mentalité cest à nit ki fii lépp lu fi am yoon wax na na lay deme nan la ñuy manifester yoon am na nit ñi am nañ droit manifester nan la ñuy jaar ba manifester am na mais di défier de façon ouverte les institutions. mais quand même loolu mais mais institution yi la. Ah. parce que charte bi bokkul ci suñu institution. ban charte charte de la non violence. dañu ko proposer. entre les candidats pour l'élection pour ces élections. est-ce que ku nit amul sañ-sañu wax ne moom euh, charte bi lii ak lii moom moo tax. du ko signé loolu état bi à ma connaissance l'État n'a pas proposé ça. waaw ce sont les religieux. c'est de bonne volonté. ak la société civile mais léegi pourquoi ñi nekk ci état bi war a répondre. mais seen parce que vous faites partie des acteurs yi nga xamante ne. dañ leen mais léegi donc man sama commentaire. c'est en tant que acteur. en tant que acteur mais mais l'État quand même n'a rien à avec ça. parce mhm. que État moo war a garantir sécurité bi. Mhm. État moo war a garantir quiétude citoyen yépp nag. état moo war a garantir liberté ñëpp. Mm. donc état dafa am ay voies ak ay procédures am ay institutions wax yëf yi nan lay tëddee ku def lii lii lañ lay def ku def lee la lañ lay def ci biir réew mi am na ay kuréel ñoo xam ni am na société civile. Mm-hmm. ñooy proposition yooyu. mais ñi koy def la engage bëgg a defar rek moo leen ko tax a def. d'accord mm-hmm. euh, ñooñu mais loolu mënuñu ah. ci juger keneen. léegi ku taxaw nii. Mm-hmm. man alam nikk bëgguma jàmm mais. état bi am na ay jumtukaay yu mu yu mu lijjantee loolu. alors ci rencontre boobu nga xamante ne gis nañu ko euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ko def kuréel wi euh, euh, daje nañu ak le président de la république. Mm-hmm. li nga xam ne moom mooy xibaar bi jëm ci possibilité réhabilitation bu Karim Wade ak bu ki nga xam ne moom mooy Khalifa Sall loolu également en tant que acteur mais également directeur de cabinet du président de la république lan moo ci sa commentaire. chef de cabinet laa wax dama maa ngi jéggalu chef de cabinet <laughs> ah, lan moo ci sa commentaire. bon c'est-à-dire. commentaire amu ci parce que loolu bu fekkee am na moom sañ-sañ boobu moom la ko yoon may te bu ko ko mayee bu ko waxee ci am na yoon bu muy jaare ay député ñoo koy voté donc sañ-sañam la ak àqulaay taalaam lay xool lu tax mu war ko def wala waru ko def hmm. mais sartu réew mi moo ko may loolu ndax war na ko def wala mënu ko def man wax dëgg yàlla waxtaanu est-ce que lu tentative pour peut-être dindi rapprochement entre Ousmane Sonko ak Khalifa Sall non non non non c'est-à-dire <laughs> madame man <laughs> stratégie politique stratégie politique parce que waa ji nag quoi ñëw ne waa ji ñu ngi wax ne en politique moom kenn du ko ko jàngal stratégiquement est-ce que ñu foofu. non non non ah surtout ak contexte bi nu ko waxee. c'est-à-dire moi je veux qu'on règle définitivement ce problème là. Mm-hmm. mm-hmm. c'est-à-dire focalise pas sur une personne. Mm-hmm. boo xam ni am day xëccoo comme ñun. Mm-hmm. nee na am na nee na sénégalais yi wóolu nañ ko mi ngi xëccoo commune. na jéem a gagné commune am boobu. na liggéey pour gagner commune am boobu mais c'est pas parce que ay jekku nañ maag fii kuñ fi jekku yaa joxe lañ la jekku répondre de monsieur le ah, ministre répondre naa mhm. cest à nee naa la sañ-sañam la moom mhm. xam nga président buy gracier mhm. man doo xam nañ lay gracier et d'habitude sax procédure bi moom du xam nañ lay gracier mais donc administrateur mais bu signé yoon moo ko may loolu comme ci affaire amnistie bi nii est-ce pour peut-être isoler rapprochement entre Khalifa Sall et Ousmane Sonko. non non pourquoi jàppoo ni que bi muy gracier Karim ak bi muy gracier xalifa stratégie la woon. Mhm. bu fekkoon stratégie la. kon dina marché. d'accord mais naa la ak akulaay taalaam la ciy xool. Mhm. moom yoon moom loolu la ko may. na Fatou bu la sëñ bi joxee dépense boo xëyee di dem nduggi mu may mu jox la cëru nga tànn li ñuy togg. Mhm. sa akulaay taala ak lu ko neex ngay xool. on termine euh, ñu ñëw ci Dime moom it mais j'espère que nag vraiment euh, non non non bul ma soxla soxla. j'espère que di nga ma bàyyi aussi non non non on perd du temps mais aussi tamit il faut ma wax tamit yow yaay présent. il faut que tu prennes aussi tes responsabilités. d'accord alors euh, monsieur le ministre sànq maa ngi woon ci yow ak pacte vraiment de non violence bi nga xam ne. Mhm. waxtaanee nañ ko. Mhm. bu ñu sukkandikoo toujours ci suñuy mbokk taskati xibaar li ñu génne wax nañu ni waa kidus bi ñu demee bëcc nañu. préoccupation yi nga xam ne ne euh, ñoom loolu la ñu taataan ci acteur de l'opposition yi mm-hmm. que ne gis nañu justice à deux vitesses gis nañu ku ma am ndey ku amul ndey gis nañu président Macky Sall jël yatam di dóore tout le temps alors tey est-ce que gis nga ñu ci condition yooyu noonu mën nañu signer charte ba jàmm dellu si mm-hmm. non euh, moom laa la wax léegi CUDIS euh, mënta wax ci turu askan bi ay bonne volonté la yu dajaloo bëgg jàmm ci réew mi rek mais waxuñu ci turu askan bi loolu mooy bi ci njëkk beneen bi ci topp mooy euh, li nga wax léegi dóor yeeg bàcc yi du moom mooy dóor yoon la xam nga yoon nee na tey jii nii bu bu bu amee kuy ñëw dugg seen TV bëgg fi indi musiba yoon nee na police dafa war a jàpp kooku mm-hmm. léegi police bu dóoree kooku bu ko jàppee du Macky Sall moo ko jàpp donc mais aussi dañu yàgg a dégg aussi le yàgg a dégg aussi le président Macky Sall di wax ni am na ci yenn dossier yoo xam ni man maa ki teg sama loxo et cetera dem na ba ñoom à chaque fois sax bu ñu joxe ay explication loolu bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy brandi xam nga léegi léegi léegi nee nga cour d'appel mhm. jox na leen dëgg est-ce que duñ fa yam mhm. ñoom bu bu bu tribunal waxee lu leen arrangé mais tribunal justice bi baax na mhm. bu tribunal waxee lu leen arrangé wul. baaxul justice bi baaxul. Mm-hmm. cour d' du nee nga ma du nee nga léegi la ñu wax ni que préfet yi ñoo def recours. Mm-hmm. mais préfet yi li tax ñuy def recours c' parce que cour d' dafa prononcé wu. Mm-hmm. léegi am na lu féete cour d' appel ci kaw mais loolu lépp ci biir justice la bokk. d' accord alors donc allez-y mënuñu jàpp ni que euh, problème mu justice la yoon moo tënk nan la ñuy doxee. nan la ñuy bañee ak nan la ñuy jëlee nguur. fii Sénégal république la ni ñu jëlee nguur mooy élection mooy dem wax ak askan bi buñ la wóoloo ñu fal la état bi am responsabilité ñun ñëpp ñu toog mais acteur politique yi muy ci ñii ak ci ñële ñoo ciy dugal wax yoo xam ni bokk ci pour seen njariñu bopp ñoo fi wax ay waxu yi xaw ma ñun ay lii la ñoo man maay mbëru ñi man maay mbëru xeet bi yooyu. mais est-ce que tey war nañu toll tey ba mm-hmm. ci jamono ji ñu toll ñuy wax mbirum charte. te constitution nekk fi mu mel ni dafa am encore une fois benn manque de maturité bu am ci suñu homme politique yi ki naan dinaa signé ki naan duma ko signé. mais naturellement am na manque de maturité parce que am na ñoo xam ne dañ taxaw ni alam ni ay eh, ñoom taal réew mi. parce que li ñu gis la nag monsieur le ministre gis li ñu gis mooy moom mënuñu signé charte bi nga xamante ne nii en face. non ñi ci des mënuñu le président Macky Sall dara. non non nee naa la c'est que cest bu ñu mm. waxee état. Mm. république ñoom dañoo jàppoon ne doguma la li leen ah. xalif bi ñaanoon ba ñu bàyyi lépp après li président Macky Sall aussi maanaam lu nu ko ñaan moom ci wetam. Mm, kiiwu ci dara euh, looloo waral violence yi ñuy gis yu ci bari bari est-ce que itam signé charte boo xam ne ëllëg si biir ñoom mënuñu leen garantir que ne ci beneen wàll gi muy wàll bi ngeen bokk yéen itam di ngeen ko respecté est-ce que nu itam loolu taxul ñu waxee noonu waxee. xam nga ñun jàmm lañ bëgg man ñun. waaw loolu ñun jàmm lañ bëgg. xaaral ma wax la. Ah. charte bi boo ko signé ak boo ko signé wul engagé wul état bi. c'est c'est c'est par rapport à l'opinion. Mm-hmm. charte bi bokkul ci processus électoral bi tout à fait. Uh-huh. charte bi nee naa la encore une fois jógewul ministre de l' intérieur <laughs> jógewul ministre des affaires étrangères jógewul assemblée nationale jógewul au conseil uh-huh. charte bi ay nit ay bonne volonté ay bonne volonté yu bëgg jàmm ci réew mi ñoo dajaloo dem daan ni dañuy jël opinion bi à témoin ne ñëpp d' accord ci jàmm la uh-huh. loolu ay ay ay citoyens ñoo ko def ça n'engage à rien l' état doit garantir obligatoirement état bi dafa a garantir sécurité ak quiétude population bi ak libre circulation wu citoyen yi. terewul président Macky Sall leen dina ko signé. ma dina ko signé parce que euh, am na ñu ñëw laaj ko te dafa bokk ci liy defar bu méngoowul woon. Mhm. ak ak ak ak yoonu defar. Mhm. luy déstabiliser réew mi mais mun na ko signé. Mhm. <laughs> alors euh, monsieur le ministre. amee ah, kenn ku bëgg jàmm ci réew mi. mais président Macky Sall <laughs> monsieur le ministre euh, peut-être euh, wax nañ ci lu lu am solo ci charte bi euh, ñu ñëw peut-être ci beneen point muy suppression du post de premier ministre. ñu annoncé ko en conseil des ministres mu war a dem foofu ci assemblée nationale mais bi ñu koy def ñu bari dañu taxaw société civile opposition am na ñenn sax ñu bokk ci pouvoir ñu réticent woon ci ci suppression du poste de premier ministre est-ce que wanul ne dañuy rek def. tâtonnement dindi poste premier ministre euh, quelque mois après wala ay at après ñu indiwaat poste premier ministre non non loolu day fekk li nga ma laajoon sànq ci wax yi euh, euh, affaire amnistie ak Khalifa Sall Karim Wade ci cëram la c'est-à-dire Sénégal ñetti pouvoir moo fi am peut-être bu fekkoon président dafa xëy bëgg a modifier fonctionnement wu justice wala bëgg a ingérer wala bëgg modifier fon fonctionnement wu assemblée nationale on peut mm. comprendre mais le président quand c'est le chef de l'exécutif il est responsable devant Dieu et les moom moom moom il est responsable de Dieu et les hommes mm-hmm. moo yor exécutif u Sénégal mooy nommé gouvernement mooy nommé premier ministre mooy nomme ci fonction militaire ak civile cër boobu moom lañ ko jox nan la koy doxalee ci juróomi at yi cër boobu moom. xam nga cër boobu ñëpp xam nañu ko. waaw léegi. ki nga xam ni ki nga xam ni cër cër bi moom lañu ko jox ca bu taxaw euh, rendre compte mooy. Euh, nan la ñuy waxee rendre compte soxna si ci ci olof nan la waxee euh, boo waree boo waree boo waree. boo waaw boo waree becc ci askan bi moom mooy taxaw. Mm-hmm. mais kooku bu deux mille vingt quatre jotee. buy def bilan wu mandat bi dina wax. lu tax mhm. mu defoon ko. mais mais xam nga jàpp naa ni ci problème mu fonctionnement et puis euh, du du du du matadi. du du xam nga président moo am sañ-sañ. xam nga président moo am sañ-sañ monsieur boo ko waxee. président ñëpp xam nañu ne moom moo am sañ-sañ. il a les prérogatives damay damay egg. c'est-à-dire donc dañ pour wane ne rek ni ko wàccul yoon. Mhm. li mu def noonu bu ko supprimer wàccul yoon. parce que am na sañ-sañ bi jaaral na fa mu ko jaar bu ko indiwaatee tamit wàccul yoon. mais ci do ci doxalinam mën na gis ni que yaakaaroon na ni que lii baax na. mais après mu gis ni que baaxul mu dellu ci. mais loolu problème. kon échec fast track bi. non. le fast track a échoué parce que daf ne woon dañuy dindi post bi ndax dañuy tax gën a baral loxo yi gën a baral. liggéey bi taxawal fast track. xam nga bi muy wax ni que dañuy dindi post bi. Mhm. yéenam la woon ci mbir yu gaaw. pour yéenam la woon ci mbir yu gaaw bi muy wax ni que dañuy dindi post bi. kenn xalaatul woon ne que dinañ tëj réew mi at. feebar dina fi dugg ba économie bi am mel nii. xëy na lu mu daan xool moom moom moom rek mu toog di xool lépp. léegi peut-être fast track boobu pour def ko. Hmm. moo tax est-ce que argument boobu yombul tamit monsieur. non non non du question. non parce que lu toll ni poste premier ministre tamit. non nga xam ne boo koy dindi wala boo koy boo koy. defar li muy laaj dafay dafay. fii nii hmm. yenn saa ngeen toog hmm. seen organigramme. amu leen woon direction commerciale service commercial ngeen amoon ngeen toog ba ci yàgg ngeen am. <laughs> ngeen am direction commerciale dama lay jox exemple rek. ngeen toog ba ci yàgg ngeen am direction commerciale. Mm-hmm. amul direction bu ngeen supprimer indiwaat ko. amul benn direction ah, si. monsieur le ministre le débat c'est pas nous. Ah, non non il faut pas penser c'est tout juste. c'est pas que vous tâtonnez. Mm-hmm. tâtonnez wu leen mais c'est dans le cadre d'améliorer. Mm-hmm. xam nga kuy gérer ay nit kuy gérer ay organisation densa da ngay tenir compte ci retour d' expérience retour d' expérience mooy ci li ngay doxale nga jàngat ci mais bu fekkee ni que da nga bëgg defar li ngay jàngat mais daf la war a tax nga améliorer li ngay def. alors ay ay ay ay mi ngi tàmbali génn euh, benn bi nga xam ne moom la ñuy gën a dégg. Hmm. ñun taskatu xibaar yi moom mooy Amadou Ba. Hmm. Amadou Ba euh, comme premier ministre euh, ban ban lecture nga ci am. ñu ngi ah. dégg ay tour mais la nom de Amadou Ba revient souvent. yow ban jàngat nga ci am. aw ma ci benn jàngat. man xëy na dégguma loolu awma ci benn jàngat. Hmm. président dina seet ki ko doy mu nommé ko. bu ko nommé ñi liggéey ànd liggéey. ñi bu nommé Amadou Ba. ban problème laa ci am. Hmm. waaw moo ci problème. ban profil ban profil nga jàpp ne euh, tey moom moo gën a baax pour ce poste de premier ministre. profil bi gën a baax mooy profil bi koy dimbali pour gis-gis bi mu am te man ma xam ko. Hmm. mu accomplir ko. kan nga ci jàpp yow. jàpp ma ci kenn <laughs> mën <laughs> beneen bi peut-être peut-être moom mooy. Ah. Euh, euh, euh, procès bi nga xamante ne mbirum Barthélémy Diaz parce que actualité la également Barthélémy Diaz procès l'envoyé encore ci weeru mars mu nekk koo xam ne war nga jàkkaarloo ak moom pour élection mairie mi ngi yëkkati kàddu ne buy wuy ji dafay fekk boobu mu nekk maire déjà procès bi ni mu ni mu ni mu yàggee lu ñu ci gis lépp bi passé bi muy wuy ji mu am manifestation songante bi pas ñu renvoyé waat ko. ban lecture nga ci am également. bon euh, soxna si xam nga li ci ëpp ci problème yi ñu am. Mhm. dama jàpp ni que xasuma ci journaliste yi de. Mhm. mais yenn saa da ngeen di xam processus bi ba pare. yi mu amee aussi xam naa ci condition yi mu nekkoon. Mhm. mais tamit li nit ñi war a njëkk a fàttaliku mooy loolu bi muy am. mais quand du nguur gi moo fi nekkoon. situation boobu ñi ko créé mais régime bi fi nekkoon la. ñoo doon rëbb ay nit man mii man mbay jonn ak moom mhm. ni mu ko dale mënoon na ma ko dale atte nañ ko parce que bakkan da ci ron mhm. atte nañ ko perdre ay droit si bigam mën na dem mhm. ci daanu ndàmpaay bi la def appel moom moo def appel ak ay avocat du du gouvernement bi du procureur du magistrature amul benn homme de droit bu bokk ci système bi du avocat wu kii mu def appel moom moo def appel ni d'accordul ci vingt cinq millions yi mu am ci droit nag tamit mm-hmm. mais ñu fixeel ko date date bi méngoo muy déposer candidature ana problème bi d'accord ay dañ koy tëj kenn mënu ko ci tëj parce que nag quand même condamné ko jàpp ma ne sax war nañ ko tëj pourquoi ñu koy tëj condamné nañ ko tëdd na il a payé fay na. Mm-hmm. nee na ci ndàmpaay bi la d' mu def appel. waaye mm-hmm. léegi ñu bëgg a wax ni que dañu ko dañu ko convoqué. pour la nekk bàyyi naxante bi. Mm-hmm. c' est à dire nañ ñëw rek ñu xëccoo. <laughs> diwet ñu sëgg bëre. ñu uh-huh. après ku nekk am mais jarul taal réew mi. parce que loo xam ni yaa ko sabab aussi jarul taal réew mi. d'accord alors euh, sànq si sa njëlbeen wax ak anniversaire u APR. Mhm. Euh, def nañu un tout petit peu le bilan na ay frustré euh, chaque jour ñu dégg ay jeunes yoo xam ni dañu porté woon espoir ci président Macky Sall ñu bokk ci biir parti bi tey am lu leen naqari bu ñu gisee ñoo xamante ne ñu bees lañ. ñu jékki-jékki ñu recevoir leen ñi ñuy wax ne jënd nañ ay oto et tout. Mhm. aujourd'hui tey est-ce que nekk militant ci biir parti. forcément da nga war a récolter les fruits su fekkee ne nii sa sa danga ko porter au pouvoir. waaw militant ci biir parti euh, wax dëgg yàlla ngëm-ngëm la. Mhm. léegi kan man bokk naa dama koy wax ah, li ci ëpp. wax dëgg yàlla man gëw ma ni sax Macky mooy joxe. Mhm. man sama bopp gëmuma lool li ma gëm ni yàlla mooy joxe. Mhm. man man sama bopp loolu laa gëm. man samay morom laa nekkaloon ñoom Biram ñoom Nene ñoom Omar Ba ñoom ñu bari mm-hmm. ñoo doon xeexandoo mais man mosuma ko wax tànn ma te xëy na moom boo ko waxee lu tax nga tànn ma mbay aussi du man gënuma ci woon mm-hmm. gënuma la ñi ma la limal ñi yëpp gënuma ci woon mais yàlla moo tudd ni kay man samay mbir noonu lay demee. d'accord frustration yi ci biir parti bi. mais frustration mënta est-ce que mu ay jafe-jafe ci élection locale yi ñu jëm nga xam ne ñu ci bëri dañoo mer toog jàpp seen jàpp. non ba bon mënu cee ñàkk frustration yi du foofu rek la am du ci suñ coalition rek moo amul frustration ñun <laughs> yeneen yëpp opposant radicaux yi ñaata nit ñoo jógee foofu ñëw jàppale ñu. ñaata donc mm-hmm. tànn dafa metti mm-hmm. wax dëgg yàlla. tout choix est un renoncement. boo tànnee rek mooy am na loo betti. boo tànnee rek bàyyi nga dara. enjeu enjeu yi ci élection locale yi. Mm-hmm. ban gëdd nga ko jox. ndax gëdd bi ko Mahmoud Saleh jox nga xam ne fan yee passé dafa génn nii élection locale yi nii bu ko kenn jàppee élection locale la mais c'est des élections politiques yoo xam ni dafa déterminante pour même la candidature du président Macky Sall. man enjeu bi ma ko jox. Mhm. mooy damaa bëgg nekk maire Dakar <laughs> damaa bëgg Abdou Khader nekk maire Plateau damaa bëgg Moustapha Kane nekk euh, maire Parcelles damaa bëgg Moustapha Mbeng nekk maire euh, Grand Yoff damaa damaa bëgg docteur Momar Gueye Momar Gueye nekk maire Wakam damaa bëgg Turpin nekk maire Sicap enjeu boobu laa ko jox. Mhm. et nous nous donnons les politique politiques pour atteindre mhm. ku ci am beneen lecture wax dëgg yàlla yow la engagé man lecture bi ma ci am mhm. ak enjeu bi ma ko jox mooy ci kàttanu yàlla ñu président Macky Sall ndax neex na conseil parce que dañuy wax ne ànd ak moom collaborer ak moom dafa difficile parce que gis nañ sax ay conseil yoo xamante ne ni tàqaliko na ñoom moom est-ce que président ku neex a conseil ah man de jàpp naa ne que mat na kilifa conseil nag ku jàpp ne que li nga wax rek la ñu war a def. te say yeneen morom nekk fa. mais bu ñu gisee préoccupation yi askan wi nekkee on a comme l' impression que ni président amul ñu koy wax dëgg di ko wax la réalité bi nga xam ne askan wi ñu mais loolu mooy li ñi bëgg a wax ci rajo yi. président amul ñu koy wax dëgg lan mooy président amul ñu koy wax dëgg président heure bu xëyee di gis dëgg gi ci kaw table la <laughs> yow ki nit ki yor ay projet am di jéem a ni jour tel dinaa inauguré jour boobu jot inauguré wul nga defe ni kooku xamul la jafe-jafe mm-hmm. non mais problème problème bi mooy ay nit rek wax transporteur UVS secteur <laughs> waxtu wi jeex na ci waxu politique yëpp na leen wax ci waxi maire bi nañ leen wax ci ñi ñuy xëccool waaw yooyu kay yooyu jàll waxtu bee jeex <laughs> alors merci déjà merci beaucoup euh, monsieur monsieur le ministre di ñu di la gërëm ci disponibilité bi. ak wuy bi fii ci seen show. waaw merci beaucoup Fatou Abdou nax na ma parce que man bi may ñëw fii man dama bëggoon ñu wax ci mairie Dakar wax ci programme bi ñu am. parce que ah mais liñ ci wax yëpp doyul nag yow tamit. monsieur yoon di <laughs> beneen mu gën mu ñëwee damay dëpp wax ji mais di wax rek. di ah. tënk di leen remercier. di wax di ñaan euh, sénégalais yi. yi nga xam ni ak électeurs yi nga xam ne dañuy bokk ci élection locale dañoo nar a dem voté ci mm-hmm. ñu xool bu baax cest à weesu nañ jamono joo xam ni nit danga naan ko kaay topp ma rek ma falu. Mhm. ku ci nekk ñi ci yoroon mairie. Mhm. nañ wax lan lañ def ci seen mairie. Mhm. ak mbot scrutin bi bi changé. waa ñi ci yoroon mairie nañ wax nañ na citoyens yi exiger seen bilan. ñi nga xam ne mosuñoo yor mairie nañ wax buñ jëlee mairie bi ban programme la ñuy appliqué ñu bañ ko teg ci ay tàccu ay fii bokk ak fee laay bokk xool ñi bëgg a liggéeyal askan bi ñu jox leen moytu ñi nga xam ni mairie yi lañ bëgg a jël pour di ko xeexe parce que ku ko jël kuñ fi jox mairie pour ngay xeex jàppal ni que yéen ñi ko fal di ngeen toog ñaari at ak genn wàll yoo xam ni xeex rek la. merci beaucoup merci beaucoup Mame Mbaye Niang ñu fàttali ne euh, ay ministre chef de cabinet politique bu président de la République candidat également à la ville de Dakar ñu di la gërëm ci disponibilité bi gërëm également Ndeye Deme Ndaw Fatou bi Ndiaye mbokk yi seen émission seen show fii lañ koy euh, yemale gërëm leen sant leen bu baax a baax ci teewlu bi des leen di woy ak topp programme Sen TV la chaîne leader euh, jaa ngeen jëf. Sen TV. Bienvenue chez vous.